alhamdu lillahi alkarimi zilminan ala shigali bi furodin wa sunan shakartuhu li annahu xasaaxani li watanin bi nafa maaqani waxaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma hazaba bi taxalli wa jarrani fiihi ila alulumi walfawzi walamali bilmaalumi summa salaatu bi salaamin tabia ala allazi qasdiya atabia mbokk yi ñu seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna bi noo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen nuyu fii ci seen jataay bii di garabu tuuba shajaru tuubaat ci assalaami point com leen di ci ànd ak seen mbokk Gana Messere Maxtaar ñu bëgg cee ànd ak yéen ci ay tomb yoo xam dañu koy laaye biirante incha allah ngir mu mën na nekk ab yóbbal boo xam ne danañ ko mën di yóbbaloo mu jëm ci dund ku tedd ki Cheikhul Xadim jëm ci ay ndénkaaneem jëm ci ñu baax ñi nga xam ne it ñoo nekkoon ci ak cappaaram ay jëm ci ak njabootam lu tax nu tudde ko garabu tuuba mooy day garab goo xam ne dafa euh, naat am meññet nekk garab goo xam ne it dafa sedd ak ker te neexi doom bu fekkee ne waxtaane nañ bànqaas yi waxtaane buut bi waxtaane car yi ak xob yi loolu lañuy boole mu nekk garab gi garabu tuubaa nag lu am cosaan la ndax jëmmi shajaratu tuubaa garabu texe la gu nekk ci biir aljanna tuubaa googu it ñëw ci alquran ñu ko borom bi subhaanahu wa taala waxee ne alladina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wa husna maab kon gaa yi nga xam ne ñooy jëf lu baax te gëm yàlla borom bi subhaanahu wa taala ñooña it ñooy dëkkee tuuba te moo di aljanna ñooña it kon mën nañ caa tànn ñi nga xam ne jaayante woon nag sëriñ bi gaa yu baax yi nga xam doon nañ liggéey ci keppaaram te jaare ko ci yoonam mu mel ni it ñaanoon na borom bi subhaanahu wa taala ab dëkk dëkk boobu noonu la tudd muy Tuuba tam ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa dëkk bi mel ni aw turandoom alhamdu lillahi alkarimi zilminan ala shigali bi furodin wa sunan shakartuhu li annahu xasaaxani li watanin bi nafa maaqani waxaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma hazaba bi taxalli